ki nga xamante ne rek moom mooy euh, Pape Alé Niang ma ngay sàkku rek ci euh, personnel bi nga xamante ne rek fekkoon na leen fa te mu am nag ay xiroo ngaaya yu doxoon ci seen diggante nag ñu daal di gas yëf ya ba mu xuut rek ñu daal di koy suul ndax nag mbir mu nu mel euh, ci nguuru Racine Tall la nekkoon moom jamono ji daal li mu bëgg mooy bennoo nekk benn juboo bu ko defee rek ñu mën a liggéey liggéey bu am solo boo xamante ne rek kenn dootul ko natable ci boobule boîte di kàddu kii di Pape Alé Niang nga xamante ne rek moom moo nekk njiit rajo diffusion télévision sénégalais di RTS ba tey bu ñu jógee foofu nag dañuy àddu rek ci li nga xamante ne rek moom la may a Dièye daal di def moom mi nga xamante ne rek moom mu nekkoon maire bu Patte d'Oie daal di nay jëfee ndigal li nga xamante ne rek kii di président de la république di Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xamante ne rek moom mooy premier ministre bi di Ousmane Sonko sàkk woon lekk ci kenn ku ci nekk bu dee danga am ñaari fonction nag nga daal di démissionné benn ba ngir mëtale benn ba mbir mu nu mel nag kii di Maimouna Dièye daal di na koy def ca bopp maire bu Padoa daal dinay jébbal ab lettre de mission mbir mu lu mel nag mi ngi ko def rek nit ki semaine bi yu génn nag di Ousmane Sonko nag mbir mu nu mel moo ko njëkk def foofa ca bopp mairie bu Ziguinchor ki ko fa toppaat ki toppaat ci kawam di Birame Souleye Diop mi nga xamante ni rek moom moo nekkoon maire bu Thiès Nord keneen ki nga xamante ni rek daal dinay defaat mbir mu nu mel du kenn ko dul maires bi di wër ci turu Maymouna Dieye moom nag daal dinay respecté engagement am jébbal nga xamante